yàqoolu Muusa ndaama dayu xoolu ndem bëgg naa jot ca la mbari ya njoolu yàqoolu Muusa ndaama naa jot ca la mbari ya njoolu bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa waa Diaspora Media TV ñu ngi leen di ziar bu baax ñëwaat ci seen émission bi ñu leen baaxoo di defal fii mu di wolofal tey ñu ñëwaat ci deuxième épisode bi fas yéene ci indiwaat olofalu Serigne Moussa bi mu tuddee taxmis jàng ci ay bayit am lu ñu ci leeral ci baati olof incha allah bu ko defee rek ñu commencé bisimilah. برحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما su ngeen dégloo tey ji ñu laa bira gaayu baax ñi naan ay wolof baaxul tere day sawal ku baax bu ngeen dégloo tey ji ñu laa biir gaayu baax ñi naan ay wolof baaxul terey day sawal ku baax kurey bay damoo néegum ndayam baa baayam bu baax baax ñu sew ñun tey ndamoo seex bàmba ngir moo fi xotti baax te moo fi wala faa xam ne yaaram yépp am ci ko dañuy feddaleeti cant ngir Bàmba moonu may nu jébbalu ànd ak moom ne kon léegi noo ngi mooy ne yéefar yi ak naafiq yaa ngi di mooy di way te ñun ñoo ngi ci lislaam ñun di waare ka saddi way ba tax noo ngi wax loo xam ne yaaram yi amati ko ba tax noo ngi wax loo xam ne yaaram yépp waxti ko teeg cant war na jaam ndax yàlla ne faskuro te cantay waral ndolleet na mel ni ñuy garoo te muñ war na bépp jaam ndax yàlla ne fas biro te daw jëm ci yàlla gën yàlla reyin firo ku daw sant muñ am lool sunuy nawle am ti ko te wallaay fas na man ngoy ci Ahmada donay xayru xalxil laay ax ni Muhammada te doyloo ko walis ñépp tey xeñtu lam ma daan digal yal fandoo taalif yi tey taggaax ma daa mu mel ni li ñuy jot a yëkkati ci ay bayit mooy su ngeen dégloo tey jii ñu laabire gaa yu baax xam naa li ko jiitu mooy wolofal bi ci suñu gëstu li ñu dégg ne mooy sabab si sëñ Moussa am yéene way ko sëriñ bi bi mu ko defalee seexal ko ndeysaan nit ñi sopp ko lool ci way gi muy way sëriñ bi ba mu dem ci benn dëkk fekk fa ak kilifa goo xamante ni xëy na dañoo bokkul ci tarixa bu ñu nekk gis mbooloo mi dar sëriñ Moussa di ko siyaare ah kilifa googu laajte ne waaw ah kii mbooloo mi dar moom mooy kan ñu ne ko kii mooy sëriñ Moussa Ka seexub sëriñ Touba te muy way sëriñ Touba mu ne ah mooy kii way olof ah moom loolu jar na ci jar na mbooloo mi di ko toppee nii niyam nga xamante ni kooku daanaka loolu dafa xawoon a xolub doomi soxna xaw ko ci dugg exemple bi ko sëñ Moussa Ka yégee bi muy woy olofal bi waaye ci boo dégloo baat yi ak ni leen sëriñ bi yaree rek ndaxte moom moo war a mu ne su ngeen dégloo tey jii ñu laabire gaañu baax nga xamante ni sàllawlu ko foofu waaye cër bi ko suñu borom cëralee kooka sëñ bi daf ko ko delloo ne bu ngeen dégloo tey ñu laa bi rek gaa ñu baax ñi naan ay wolof baaxut te rëy nag moom day sewal nit ku baax mu ne kuréy bay damoo néegub ndeyam mbaa baayam bu baax waaye ñun moom ñu sew tey damoo Seex Bàmba nag ngir moo fi xotti baax euh, nga gis worma ji nga xamante ni ci la ko tontoo tontuwu ko sax ci ci cadre moom ni mu ko jéemee di ko suufee lag yooyu waaye daf ko jox wàccuwaay bi ko suñu borom jox te xam ne dara daraja moom suñu borom bu ko joxee nit nit mënta wax ba mu deñ looloo waral mu tontu ko baat ne bu ngeen dégloo ñu laa bire gaa yu baax ñi naan ay wolof baaxul te rëy day sewal ku baax mu ne ku rëy bay damoo néegum ndeyam mbaa baayam bu baax nu sew tey damoo seex bàmba ngir moo fi baax ah ngir seex bàmba moo fi baax mu mel ni la mu ca tegaat rek dana ko ku rëy bay ndamoo néegum ndeyam mbaa baayam bu baax nu sew tey damoo seex bàmba ngir moo fi xotti baax te moo fi wolof nag boo xam ne yaaram yëpp amti ko maanaam ku mel ni Serigne Touba moom kenn amu ko ñun rek la ko yàlla jagleel donte dañuy di wolof dañuy feddalee rek cant nag ngir Bàmba moom moo nu may nu jébbalu ànd ak moom nekkoon léegi noo mooy xam nga ñoom seen lépp rek dañ ko jëloon def ko muy sant Serigne Touba moo tax lépp daraja junu mën a yëg ci seen bopp rek sant Serigne Touba lañ ko def loolu moo tax mu ne dañuy feddaleeti cant nag kon. ngir Bàmba moo nu may ñu jébbalu ànd ak moom nekkoon léegi noo ngi moy ni yéefar yaa ngi naa feq yaa ngi di moy diway waaye ñun nag ñoo ngi nii ci lislaam di waare ak di sat di ba tax noo ngi wax loo xam ne yaaram yépp waxti ko ah amul ku mus wax lu toll ni ñoom li ñu wax sëriñ Touba sab sëriñ maanaam ci tedd nga ak li ñu wax sëriñ Touba nga xamante ni lu la umpale ci sëriñ Touba rek ñoom wax nan la ci loo xamante ni boo dikkee boo dikkoon sax fekkoo dara lu bokk ci sëriñ bi nga nga déglu leen rek maanaam dina la mën a guider bu baax a baax mu ne te ak cant nag war na jaam ne yàlla ne faskuroo maanaam euh, gis nga nit cër bi ko suñu boroom jox daf cee war a sant bu baax cër bi mu jox mbokkum jullitam mu sant mu sant mu sant ci yàlla ngir xam ne nit la waaye mënta xaj nit ndax sëriñ bay Jaxate am na fu muy waxee ne fa yàllay fexeelu laram yi wuréy du diisoo da koy def rek ñu xëy ko gis kon yàlla moom li muy defal nit ki rek tàggoo ci kenn da koy def waaye sant suñu borom nag weesuwul mu defal sa mbokkum jullit teraanga nga yéene ko ko loolu ci sant yàlla la bokk loolu mu ne te ak cant war na jaam ndax ne yàllaa ne fas faskuro te cantay waral ndool leen na ngeen mel ni ñuy guroo gis nga li suñu borom waxoon Suleymaan maanaam cant cant dafa bokk ci loo xamante ni luy kawel ay maqaama la luy kaweel daraja la maanaam ku sant ñu dolli ji lañ shàkkatum la azidannakum mu ne waaye muñ nag war na bépp jaam ne yàlla ne fas biro maanaam eh, lii teraanga ji yàlla jël nit ki jox ko ko ba nit ñëpp di gis teraanga jooju di ko sagoo maanaam nit mënu koo xañ waaye yow mi nga xamante ni xëy na danga am xol bu ci nux nuxi nag yow lay wax ne la muñ war na bépp jaam waaw da ngaa da ngaa war a muñ muñ nag da ci dafa dafa nekk loo xamante ni loolu bari nga ne la waaye muñ gi Serigne Touba sàlloo woon nag moom moo ëpp solo muy muñ li nga xamante ni mooy ay mettit yu la nit ay di teg wala ay tuuma moom daanaka fii day xamal kookee ne ko mu ngi ci ak muñ gu sax moom ndax li ko Serigne Touba defal doy noo ko sëkk moo tax mu ne muñ war na bépp am ne yàllaa ne infiro ku daw sant muñ am lool suñuy nawle amati ko waaw kon boo sante yàlla yokk la boo muñee lañ boo muñee it maanaam suñ borom defal la lu gën boo doon fay comme lu toll noonu mu mel ni bayit yooyu lañu ciy jot a yëkkati beneen incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf ñu ngi siyaare it waa euh, télévision bii di DMTV dëgg yàlla liggéey bi rafet na trop di ñaan mbokki taalibe yi ngeen koy bàyyi xel te di ko doole rawatina ñi nekk ci dëkk bi Maroc ñëpp ak fu ngeen mën di nekk ngeen di ko bàyyi xel ndax yin ci def yëpp yu am njariñ la waaw ñu ngi ziyaara baax sama caméraman Alaaji Ñing ak DC Sëñ Abdoulahi Diop ziyaare waa DMTV groupe bépp rek yaa ngeen jëf wasalaam yaqulu Moussa ndaama day xoolu ndem bëgg njoolu yàqoolu Musa ndama dayu xooloon ndem bëgg naa jot ca la mbari ya